ak kontante fii ci siège euh, électoral bi nga xam ne fii la listu Pastef ak allier yeeg coalisés yi euh, fii la ñuy dajee régulièrement euh, pour voilà dëgmal campagne bi ñu ngi ci déjà d'abord ma fekk fii vraiment tous les tous les candidats ak tête de liste bi nga xam ne moom fekkante woon nañu assemblée nationale soxna Ndeye Rokhaya Ndiaye rafetlu taxawaayam nag ci assemblée nationale ba mu fa nekkee ndax moom xam naa ko tout particulièrement ak tous les responsables aussi euh, tey yu Pastef yu Mimi 2024 ak toute la coalition euh, ñu ngi ànd vraiment main dans la main bokk ndey bokk baay pour am euh, victoire bu mucc ayib fii ci département Euh, bu Kaolack waaye ci région wu Kaolack sax d'une manière générale parce que man euh, Saalum Saalum laa am ci une grande fierté euh, dañu bëgg nag résultat bi ñuy am mu doon résultat bu bu mucc ayib. département de Kaolack ak ville de Kaolack ak région de Kaolack mooy booy seet xolu Sénégal boo xoolee carte bi sax ñun ñu ngi ci centre bi ba noppi nag ñun suñu contribution. Euh, ci koom-koomu Sénégal kenn daaw ko naatable euh, surtout ci première année indépendance yi euh, bu ñu xayma douze premiers ministres yi nga xam ne Sénégal jot na ko am huit yi voilà fii la ñu soxee ko fii ci ci région wu Kaolack kon vraiment yàgg naa doon yàgg nañoo doon ay ay jàmbaar aussi ci kon suñu contribution ci Sénégal donte nag vraiment soxla nañu suqaliwaat vraiment Saloum bu baax suqaliwaat Kaolack suqaliwaat suñu région Euh, bu ko defee ambition bi nga xam ne euh, vraiment président Bassirou Diomaye Faye am na ko premier ministre Ousmane Sonko am na ko ak gouvernement am ak ñi muy liggéeyal yëpp euh, fii sunu sunu sunu dëkk Kaolack sunu département suñu région mën cee gis boppam day fekk nag ñu nit ñu organiser wu bu baax a baax a baax prévoir nañu bu nu jógee ci victoire bu mag bi nga xam ne incha allahu rabbi yàlla dinañu ko jagleel ñun ñëpp ñu toog waxtaan am lu mel ni ay assises. de la région euh, bu ko defee euh, ñu fekki aussi ñi nga xam ne ñoo ñu jiite wax leen ne euh, ñun suñu contribution ci ni ngeen gisee suñu région bi lii la muy ci wàllu ndaw ñi ndax xam na ñu ne Kaolack muy département bi muy région bi ndaw ñee ci ëpp. Euh, te vraiment war nañu gën a euh, farlu ci seen formation surtout boo xoolee Kaolack Jakarta rek a fiy dox booy seet euh, wala marché bi dañu bëgg aussi Kaolack nekk un centre de production industrielle de transformation de li ñu fiy bay du seulement gerte gi rek mais indi fi aussi yeneen i industrie bu ko defee xale yi ñu am ay centres de formation dans chacune des capitales départementales euh, loolu war naa am euh, bu ko defee ñoom it euh, voilà ñu gis seen bopp ci koom-koom bi Kaolack dal di doon aussi un pôle industriel un pôle agro-industriel sax laa war a wax Euh, boo xam ne bii war naa mën a contribuer ci koom-koomu Sénégal jigéen ñi aussi euh, ñu mën leen a organiser davantage former leen ñoom it jox leen ay jumtuwaay euh, ba ñu doon aussi des productrices pas seulement di bay mais aussi di transformer li nga xam ne moom la ñuy bay fii par exemple boo ko jëlee gerte gi war nañoo mën a am ay unité industrielle de transformation ba nga xam ne bii suñu diwlin bi moom la ñuy lekk du ñu jëli beneen diwlin di ko indi loolu war naa mën a nekk infrastructure aussi bi nga xam ne moo ci jiitu mooy le port de Kaolack parce que loolu poumon la boo doon xool ci nit xëtër yi euh, mooy tax nit kiy dund kon ñun euh, xamoon nañ fi parce que fii nag fi laa cosaanoo xam ko bu baax a baax fii laa duggee école euh, ca jamono ya port de de Kaolack moo yore woon koom-koomu Kaolack voilà ñu amoon ci yaakaar ay dragueur ñëw dañoo ëlbatiku rek ñu jël dragueur yi dem mel ni dañu doon nax loolu nag bëgg nañ ñu ñu fajal ñu ko ba pooru Kaolack voilà euh, dundaat euh, doon vraiment un outil économique important loolu it bëgg nañ ko fi. Kaolack di aussi ville culturelle euh, fii xam na nañu les grands artistes yi fi jógee voilà ak les grandes tendances voilà culturelles musicales ak yu ni mel. Euh, loolu it euh, industrie voilà créative bi euh, am na fi am na fi base bu solide solide solide war nañu ko yeewaat loolu it day bokk ci liy jox xale yi liggéey day bokk ci liy dundal aussi suñu cosaan ndax culture ndama jàpp ne aussi am na solo ci réew parce que nit li nga lay njëkk a identifier mooy su culture ñu war cee am fierte nag Euh, fii culture Saalum Saalum euh, culture bañkat la culture liggéeykat la waaye aussi euh, ñu mën a dalal ay gan la ñu aussi du ñu terminer nag sans nuyu gërëm ziyaare sunu kilifa diine yi région wu Kaolack pôle religieux la aussi fii fii defe naa ne confrérie yëpp fekk nañ fi baax Euh, fii aussi mooy dëkku Baye Niass euh, voilà euh, mu ñu fii bu ñuy bu ñuy bu koy xayma moom it fii la nekk ah mu doon aussi un pôle boo xam ne bii ñu ngi fi gis de grandes autorités aussi muy ya ah, ñu ngi fi kër voilà kër yu bare ngi fi Kaneen a ngi fi ala la Mouridia aussi ñu ngi fi macha allah voilà kooku it kër sëñ Bassirou mu ngi fi loolu it li mu firnde mooy Kaolack foyer religieux la aussi bëri daara. Euh, ñu fonk fi diine ci wàll woowu nag aussi bëgg nañ cee am ay xalaat ba nga xam ne daara moderne ni ñuy wax euh, dinañ ko fi gis voilà suñu xale yi dem ci daara yi mën a aussi am formation professionnelle bu ñu dem bu ñu génnee ci yooy it ñoom it euh, mën a am liggéey mën a bokk ci production bi nga xam ne moom lay wax kon loolu it bokk na ci li nga xam ne lii ñi nga xam ne ñooy électeurs yi war nañoo xam suñu yéene ci ci ci département bi ak ci région bi Euh, d'une manière générale commerce fii booy bu ñuy wax région wu Kaolack wala ville de Kaolack wala département de Kaolack ku jëm Guinée fi ngay jaar ku jëm Mali fi ngay jaar ku jëm Gambie fi ngay jaar ku jëm Guinée Bissau fi ngay jaar donc Carrefour la voilà ñu war a am nag marché boo xam ne bii euh, dayom voilà ma nga ma ma toll na euh, ci marché régional kooku it ñu war a doon loo xam ne war nañ koo terminer am ay infrastructure assainissement vraiment comme ça état central Euh, comme am na ci ay programme d'urgence yoo xam ne yii bëgg nañ ko yëkkati Kaolack aussi gis ci boppam moo tax vraiment ñu bëgg a waxtaan ak toutes les populations euh, ni ñu ko defee nii ci comité électoral bi doon benn ñun ñëpp mënoo cee xàmmee kan moo bokk ci ban parti euh, ñu doon benn pour ànd vraiment am une très belle victoire ñu ngi xaar Euh, tête de liste euh, premier ministre Ousmane Sonko yegg si dinañ ko fi teeru vraiment ak beaucoup d' enthousiasme euh, bu ko defee moom it dina dina waxtaan ak ak askan wi ci projet yi nga xam ne mooy lii nga xam ne am na lu ma ci junj ñun ñëpp bu nu génnee ci élection bi ak une belle victoire dinañu continuer liggéey vraiment sur ce programme pour que Kaolack Euh, delluwaat nag ci place bi nga xam ne mooy place am mooy mooy une une une région dynamique boo xam ne bii vraiment day contribuer ci développement wu Sénégal euh, ba ñu ràññee ci bu baax a baax a baax. voilà ni ma ko waxee un beau foyer religieux fii moom tarixa yi dañu fiy dund ci anam bu rafet. voilà di demlante di dikkante euh, loolu it lu ñu rafetlu la euh, jeunesse boo xam ne yi aussi bëgg na liggéey wax dëgg yàlla boo gisee rek lu ñuy daj ci Jakarta yi kon ñooñu rek euh, aussi cette jeunesse là nekk au centre de nos préoccupations kon vraiment dina dinañu wàcc ci terrain bi ensemble am approche communautaire fekk nit ñi ci seen biir kër këroo kër lañ ko bëgg a jàppoo voilà ba benn carte du ñu rëcc incha allah bu ko defee waa Kaolack mottali yéene bi nga xam ne wane woon nañ ko euh, le 24 mars euh, ba ñu am une belle victoire fii ci département wu ci ville du Kaolack ak ci région Kaolack yëpp jërëjëf. mën